Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf carte gu jaxasoo dëgg ku bëgg xam nu muy mel xool ko ci lu tukkee ndëggum ci élection législative yi woon ci réew mi démb libération nañu guerre des ci la waa Benno Bokk Yaakaar ak waa Yewwi Askan Wi toll ginnaaw yi génnagum ne coalition bu ci nekk génne na xaymam teg ci taabal ji teg ci fëgg dënam naan moo gàddu ndam li Aminata Touré mi ne woon tête de liste bu Benno Bokk Yaakaar ni ñu jox majorité la si ne kay nañu waa Benno Bokk Yaakaar nee nañu ci ñeen fukki département ak juróom-benn yam ci réew mi fanweeree ñooy borom centre urbain yam ci réew mi nag laas mi ngi ñuy xamal ne yépp la yeewi ngar daajoo teg ci loxo yeewi waabale na lu bari Benno Bokk Yaakaar mi ngi bañ bañ lu lii mooy li Sud Quotidien bind ci xëtamu njëkk yéenekaay bi booleel ñu ci kàddu Aminata Touré yu mu yëkkati démb ci conférence de presse boo xam ne doon nañu ko amal ci guddi gi moom Aminata ngi wax ne ndam lu benn werante mu di victoire la ñu am ndax gagné nañu lu toll ci fanweeri département Barthélémy Dias ko tontu ci journal bi moom Aminata Touré ko xamal ne dangay wax lu la neex gañewu leen fanweeri département Le Quotidien nañu doole ju bari ji nga xam ne opposition bi wane nañu ko ci législatif yi du jàmm ci waa Benno nee nañu ñoo am majorité ci assemblée nationale waaye ci jamono joojee intercoalition wàllu yeewi teg nañu loxo ci Ndakaaru teg loxo ca Kees teg loxo ca Sigicoor Vox Populi bind ne ci contentieux électoral bu rëy ci la jëm ne waa Benno Bokk Yaakaar nee nañu ñoo am leer na duñu ko bàyyi mu jàll dinañu wàcc ci mbedd yi ngir li ñuy ruumandaat bañ a jëm kaw ci kaw loolee l'observateur mi ngi ñuy xamal ne àndub yeewi askan wi ak wàllu Sénégal ci élection législative yi we xaat la def ci gaañ journal bi dañu xamal ne bu ñu sukkandikoo ci tendance yi nga xam ne jot naa génn ci téeméeri siège ak ñeent fukk yi ñu am ci assemblée nationale yeewi ak wàllu am nañu ci juróom-ñaar fukk ak benn Benno Bokk Yaakaar am ci juróom benn fukk ak ñeent aar Sénégal am ci ñaar bokk gis-gis bunt bi ak les serviteurs ku ci nekk ci ñoom am benn journal l'info xëy di dëggal waxi l'observateur ji ba bind ci xëta bu njëkk ne lëngoo lëngoo gi nga xam ne waaye yeewi askan wi ak waa wàllu Sénégal lëngoo nañu ko ci législatif yi jurul jàmm direct news nañu waaye kenn du góor gi Abdoulaye Wade maître du jeu noonee la ko yéenekaay bi tuddee yéenekaay beneen di bés bi le jour di ñu xamal ne kii di Macky Sall ji sës na rëkk ci miir bi source waa ko moom kay li nga xam ne feeñ na ci wotey législatif yi woon démb li muy wane moo di diggante Macky ak askanu Sénégal si fini jóg tubaab ko nañu waa Benno Bokk Yaakaar jàpp nañu ne ñoo gañe élection yi bay fëgg seen dënn ak di tëgal yi li muy bañ a dégg coalition il faut que mu am assemblée nationale le mandat nañu du mën a la déet ndax gañe gu réy gi nga xam ne intercoalition yeewi wàllu gañe nañ ko ci fu ci mel ne ci ndakaaru ca ndar ca Louga ak ci Sigicoor mel na ne ci jamonoy cohabitation pouvoir opposition ci assemblée nationale fa la ñu jëm li ñu gis démb ci réew mi ci élection législative yi bu doonub laj koloñ bu ñu piis anki dina kay nee nañu cohabitation lay xeeñ journal La Tribune moom xëy di tàccoog ñaari loxo ba di ñu wax ne ndax yàlla cohabitation pouvoir opposition am ci assemblée nationale seen parfum yu neex yi di safir